ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dino ay maqaam yàllaw aousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi irahmanirahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman aousubillah bisimilah in wala yàlla salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ne yéen ay taamu seen jotaay bi nga xam ne jotaayu xam-xam la ñuy santat yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee fekkewaat ak tal ba ñu mën a toogaat tey defaat jotaay bi waaye di amaat mbégte bu baax a baax ndax ki nga xam ne saa su ne mi ngi jël jotam di ko jagleel askan wi euh, ñu fas yéene àndaat ak moom tey ci biir liggéey bi di Serigne Cheikh a Ndiaye alxuraan sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir jotaay bi naan lan salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mm-hmm. Baye Talla ñu ngi lay fay nuyoo. macha mbokk yi nga àndal di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre fii ci réew mi. Hmm. ak bitim réew di leen wax aleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf suñu Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci nuyoo bu am solo bi macha allah rabbi ñuy waxaat rek alhamdulilahi rabil alamin ndax bi ñu amaatee wér ak kàttan ba mën a defaat jotaay bi sant ci yàlla bu baax a baax li ngay faral di wax. waaye tey jii moom xam naa ni fi ma bëgg tàmbalee waxtaan bi mooy suñu mbokku internet yi li ci rawatina suñu mbokku moodu yi nga xam ne ñi nga dañoo ne bitim réew. dañu am laaj yoo xam ne dañu koo laajoon keroog. man la woon leen lool nag moom yàlla dogal na moom jotaay bi may amaat ak sang bi moom incha allahu rabi loolu laa koy tàmbalee. bokk na ci bi ci jiitu muy baatu bismillahi rahmaani ñu gën ko xam ci basmala lañ doon bëgg nga indil leen ci ay leeral ak yi làmbu làmb yi mu làmboo lépp ci biiram ak digganteem ak faatihatul kitaab lan moo leen utale. waaw Baye Talla ñu ngi. siyaar mbokk yooyu nga xam ne ñoo nekk bitim réew di leen dalal ci biir émission bi di ñaan lépp luñ fi dégg ci ay kàddu yàlla def ko njariñ ci ñoom def ko tamit muy yiw génne leen ci ay xat-xat te yaatal seenu tukki yàlla na kàddu yi ñuy déggee ci ñoom doon seen njariñ ñoom ñëpp masala nag boo ko laajee boroom xam-xam mhm. bu ragalee yàlla ni mu dikkee rek la koy leerale mhm. baatu bismillahi rahmaani rahim am na ak wuute ci fatiha mhm. boroom xam-xam yu bari wax nañ ni baat la boo xam ni moo jiitu fatiha ci àdduna est-ce moom basmala hmm. téere yu njëkk yépp indi nañ ko hmm. wax nañ ni ñëw na ci sabuur ñëw na ci tawreet ñëw na ci injiil ñëw ci qur quraan te mooy alquraanul karim hmm. boo demee nag ci téereb yonent yàlla Isaa baatu bismillaahi moom ma nga fa ñëwee ismullahi ismullahi nag mm-hmm. mooy turu yàlla foofa ole baa gi ñëw mm-hmm. cekkan lañ indi ci suufu alif mu dikkee ismullahi di sistife turu yàlla kon bismillahi mm-hmm. rahmaani rahim ismullahi al la ismullahi al la boo xam ni dañoo wax ni big ni muy amee kubéer mhm. nga xam ni bala nga cee bind dara ubbi kubéer gi mhm. wala doo bind mhm. noon la làmmiñu doomu aadama amee kubéer bala nga cee wax lenn lu sotti da ngay ubbi kubéeru làmmiñ gi te làmmiñu doomu aadama ñi kubéer gi ko ub li koy ubbi mooy bismillahi baat boobu bismillahi su ko defee nag raxmaani ak raxiim mhm. ñaari ñaan la yu daje mhm. raxmaani yërmaande yàlla ju musa yërëm loo musa xamang ca biir parce que raxmaan ci muccug lu mu mën a doon tey jaar ci coobe coobare suñu boroom mi ngi ci biir parce que muy ismullahil azam boo xam ne yàgg na lool ci jamono mhm. ñu ñëw ci njariñ yi doomu aadama bi ñu njëkk a xam mu yor ko comme tur yàlla di ko liggéey mhm. mu tudd Asix bun Balqiya ca jamono yonent yàlla Suleymaan mhm. gannaaw Suleymaan mhm. ci darajey bismillahi rahmaani rahim tax na yàlla defal ko mboolem nguurug Suleymaan gi ñam fa jamono la moo leen ëpp xam-xam junne ja nga xam ne xamoon nañ ko mu koy liggéey ca nguurug Suleymaan ca jamonoy Souleymane mboolem junne yam damanoon teeloon mu leen ëpp xam-xam. te ñoom ñaar ñoo fa doon liggéey ismulal azam bii nga xam ni moom la wax. basmala te mooy bismillahi rahmaani rahim. muy baat boo xamante ni si ni alquran jépp ci la ko suñu boroom commencé. te alquran nag boo xamoon fa mu jóge hmm. fi yàlla jaar ak jibril fi yàlla jaar ak yonent bi bañ jot ci mhm. nga xam ne alquran lu dul alquran alquran la gën a màgg ci kaw suuf si lu matee ni alquran nag mhm. suñu borom di ko commencé mhm. saar yépp mu commencé ko baatu bismillahi rahmaani ba mu des baraatu lu toll ni doomu aadama nga xam ni doomu aadama ki bagaasam wax nañ ni ku dul yàlla nit yéem na la lépp lu ko suñ boroom ni wax ko yow nit bala nga ko wax na nga ko commencé ci baatu bismillahi moo war a tax nga xam ni tur woowu baytaale turu màgg la mm-hmm. tur la woo xam ni nag àdduna wërngal këpp mooy ismulaahil azam bi ëpp lu ñuy tudd ci làmmiñ su dee jaar nañ ci ndigalul yàlla mm-hmm. ndax yàlla nee na bépp jullit bala ngaa yëkkati genn kàddu di wax na nga wax ñaari kàddu yi mooy auzu billahi mina saytaani rajim mm-hmm. na ñaan yàlla musal la ci saytaane ndax ay pexeem yàlla da koo xam mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim nga commencé ci tur yàlla yàlla mi nga xam ni moo yor xéewalu àdduna ak alaxira nga door a démarrer say wax su ko defee nag mm-hmm. dañoo jële ci imam wi mu génn ci ay dog génn ci yoonu sikkar ndax waxoon naa la barki démb wala zikrullahi akbaru mhm. gis nga julli Baay Taala ni màgge mhm. fa ko yonent bi jële ni julli tol ci yàlla mhm. nga xam ne boo demoon bay dee mën a noyyi te sa xel mi nekk ak yow yàlla wàccewu la julli musu ko wàcce benn jaam nga xam ne obligatoire la ci ku mën a doon julli ni mu bala ngaa mën a xam julli ni mu toll nga dajeeg boroom xam-xam bu xam julli hmm. suñ borom ni la loolu lépp soo ko dajaree wala zikrullahi akbaru tudd yàlla moo gën a màgg loolu waaw ko war nag dafa bokk ci hmm. li làmmiñu doomu aadama di tudd te munta lim njëriñ li ndax bari géej yi ci àdduna yëpp suñ ko dajaloo di ci bind njariñul bisimillahi rahmaani rahim géej yi dinañu ŋis te njariñu duñ jeex yaa ngi dégg mm-hmm. suñu boroom nag nee na nguur gi gën rëy ci yéen jullit ñi te ma joxoon ko Suleymaan mm-hmm. bi ma ko joxee bagage bi ma ko booleeloon mooy baatu bisimillahi rahmaani rahim mu manipulé ci àdduna bi diiru li mu ko seere kon nag képp koo xam ni yaa ngi fii ci àdduna mhm. te yuuxu yi àdduna di yuuxu nit ñi di leen déranger nga bañ cee bokk saxalal bisimilah rahmaani rahiim macha allah mhm. bu njëkk moom la mag ñi tuddee woon bay sa bay bay sa bay nag ab lim la ci mhm. yaa ngi dégg ca mag ña ca mag ña <laughs> dafa am dog buñ ci jëloon tuddee ko bay sa bay xam nga luñ ca jublu woon a hmm. doo ko yoree dootoo ñàkk dépasse mag ñi ñoom dañ koo assuré woon moom mhm. amul menn mag moo musaana gis ca jamono ba jamonoy baax mhm. muy liggéey ismilahil ansam bii ñuy wax latif mhm. am jafe-jafe lu mu dundee wala muy liggéey la am jafe-jafe wërsëg ña ko yoroon ca mag ña ca seen jamono la muy métti métti amoon nañ fas wu baax am wutiir bu ñuy war di mm-hmm. noos mooy yi jamono jii mm-hmm. am tool yu ñuy bay mm-hmm. am surga yu leen koy bayal am njaboot gu leen di liggéeyal ci ndigalu yàlla ñi ko yor ci jamono jii am nañ ay kër yu rafet am nañ ay taalibe yu leen di liggéeyal am nañ jonga ma ju doy am nañ oto yu ñuy war am nañ ay compte bancaire yu fees dell ci ndimbalu yàlla ca bay sa bayal sa bayal sa bay bayal sa bopp rek. Oh, déedéet fekk bay sa bay la. bay sa bay. yow dañu la laaj loo moo tax ñu lay leeral. <laughs> yow waxuma ak yow waaye ñu la laaj loo. te xam secret bi tax ñuy laaj. Mhm. ñoom laa ci indi leeral. ndax ñu def ci yitte. wér na nee dañoo toll ci jamonoy sikkar. Mhm. jamono ji nag ku bëgg a mos. Mhm. di nga sikkar. ku bëgg a mucc di nga sikkar baay taala. kon ñu bàyyi fatiha bisimilah rahmaani rahim te dugg si ci fatiha bala moo gën a jël temps bi mhm. waaw fatihatul kitaab waaw ñu ci bëri moom xaw a jaaxal mooy ñu bëri dañoo amul différence ràññaak la ci diggante basmala ak fatihatul kitaab waaw bisimillahi rahmaani rahim dina ñëw ci fatiha kenn mhm. mu mënu ko cee génne imam malik sax ci julli mhm. dafa leen la na ko wax ndànk ci suuf doora a béral alhamdulilahi rabbil alamin ak la ca topp waaye bismillahi rahmaani rahim tur yàlla la melow yàlla wu yaatu la ci suñu boroom jaar-jaar la itam boo xam ne doomu aadama yëpp mën nañ cee jaare faatixatul kitaab nag moom moom it ndigalul yàlla la lu ñëw ci nit ñi suñu boroom jaarale ko ci ñoom nga xam ne nit ñi dañ koy répété ci bis bi yu ne alxuraan saar yi li ñuy bari bari saaru faatiha ëpp lu ñu ciy jàng par bis mhm. yooyu nag ay secret la yoo xam ne doomu aadama yi li tax suñ boroom baril ko ci seeni nopp waroon nañ ci def gëstu surtout alxuraan ni saar yi bare mhm. suñ borom ni la wenn saar wi daal loo wax ci julli gi boole ko ci mhm. ak julli ni mu toll ca yàlla waaye war ngaa gëstu ji saar yi waay dégg wax bi faatiha noonu la magee noonu la màggee waaye comme leeraloon naa ko ci émission bële. Mhm. leeral nga ne li ci am. Mhm. wax la la muy def. Mhm. tey dama koy junj rek. balaa gën a jël suñu temps waaye daal. ñaar yi am nañ différence. dinañ leen kar ñoom ñaar yëpp. wax naan la képp koo xam ni saxal na junni faatixatul kitaab di ko werd guddi gu jot nga jàng faatixa junni yoon bala ngaa tëdd. bala ngaa faatu da ngay am ay malaayika yu adapté wu ci yow yu nekk ak yow bisimilah rahmaani rahiim rak boo ko saxalee ñaari baat yi di ko werd bala ngaa faatu faw nga am ay jundun ilahiya te mooy ay armée yàlla boo xam ne yàllaa ko créé boole kook yow xam mooy kaaraange gi gën a mag ci kaaraange yi te ñaari baat sax nga cee liggéey mooy yaa rahmaani yaa rahim mm-hmm. yaa rahmaanu yaa rahim yaa rahmaanu yaa rahim bismillahi rahmaani rahim yaa rahmaanu boo ko dee liggéey comme nii ma la ko waxee di nga dem ba am ay jundun ilahiya yoo xamante ni si ni armée la buy jóge ci suñ borom ñëw nekk ak yow yooyu ay malayka la ñuy doon faatixatul kitaab it kasaalika boo ko dee liggéey dina dem ba jundun ilahiya di la di la di la feeñu muy malayka yoo xam ni ci kaaraange suñ borom gi lañ bokk di la dikkee yow jaam ndax jaam bu ne dafa am ak leeru yàlla goo xam ni mhm. dafa jóge ci suñ boroom nekk ci moom leer googu nag jamono bu demee ba leer naññi dafa am yuy ànd ak moom baytaala yaa ngi dégg leer waaw baax na ñu ko <laughs> incha allah loolu moom danañ ci jàppaat beneen jotaay boo xam ne ndax euh, faaw am na luñ ci war a gëstuwaat bu baax baax incha allah waaye defe naa ni suñu mbokku internet di tey seen xool dina sedd bi nga xamante indil nañ leen leeral bi nga xam ne moo ne ci diggante li nga xamante ni mooy bismillahi rahmaani rahim ak fatihatul kitab kon defe naa ne am na solo bokk na ci itam beneen bi nga xam ne ñu ngi ko doon laaj muy tey ji ñi nga xam ne doomu aadama yi nga xam ne dañuy faral di wax ni dañoo am faru rab est-ce que tey jii ñi ciy tëdd di gént sëy ak seen faru rab yi am na conséquences yoo xamante ni mën na ci am waaw conséquences yi dafa bari ci loolu hmm? waaw hmm. dañoo wax ne rab dugg la di la sayloo ngay kaddi kaddi. Hmm. ak def la ngay waxtu fu ne nga jëm fa. Hmm. moo gën rab dugg la di sëy ak yow. que est-ce que dégg nga rab hmm. dugg la. di la daanaloo kiris di la manifester la waa di la defloo ay manifeste wala mu lay sayloo wala mu lay waxtuloo wala mu lay doxtloo wala mu lay xabtal. wala mu bañ laa nelawloo. ndax yooyu yëpp rab da koy def. ñu ni yooyu sax ñoo tane. rab dugg la ba pare di la feeñu ngay sëy ak moom. parce que képp koo gis fi ne nii. Hmm. muy tëdd di gént di sëy ak jigéen. jigéen ji di soppeeku ci biir gisin gi mu koy gis jamono bu nekk. di ko hmm. dikkee nag ay mbokkam ak. Hmm. ay rakkam ak ay magam ak. ay xaritam ak dafa mu dikkee ko jëmmi góor ak yëpp muy jaxasoo ak moom di sëy ak moom kooku ñett yi faaw mu daje ci moom. muy ban ak ban mooy lu mu yaakaar mu tas. ci te du jóg ci feebar. lu mu yaakaar mu tas. te du jóg ci feebar li gën a simple nag ca lam koy bàyyee mooy gàtt fan du koy gudd fan. est-ce que yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndax jaxasoo googu rab bi di jaxasoo ak moom moom daf koy jàppee gént waaye loolu ak jaxasoo la. rab bi di dikk ci moom di jaxasoo ak moom carrément. Mm-hmm. loolu nag ñun borom xam xam xam nañ ni noonu lay demee. Mm-hmm. ndax moo tax mu ci yëg boppam ba ñu jógee suba day gis ni. bu doon jaxasoog nit la muy génne bi muy jaxasoog rab bi génne na ko tooke jooju ko rab bi di bàyyee nag mhm. moo koy faat mhm. yaa ngi dégg bu baax te amul kenn koo gis muy tëdd guddi di jaxasoo ak rab di yor wërsëg wu toog ci ay loxoom waaw loo bari bari alal sooy tëdd guddi di gént di jaxasoog rab bala ngaa faatu lépp wan la ginnaaw dafa bàyyi la ñuy doon. xam nga loolu bari na kon hmm. ay conséquences. ay ah, conséquences yi moom. waaw moo tax loolu moom ñi nga xam ne leen a dal. Hmm. nañ ci jóg ndax conséquences yi ci nekk. Hmm. moom dafa garaaw loolu ba tax jéggi na moom moo xam ne du la bàyyeeg wërsëg du la bàyyeeg <laughs> jàmm te te day gàttal soo fan moom fi ne moom <laughs> waaw teel cee jóg day daal di am solo daal macha allah rabbi yàlla nañu sama borom dolli taxaw te defal ñu ci tawféex daal mboolem jullit amate na solo Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu bi laaj tamit suñu mbokk jigéen ñi ñoo ko ñoo ko laaj ndax jigéen ñi tamit boo xoolee ci jamono ji fi mu ni euh, mel na ni jamono ji ñu toll nii bëriwaan bari na ci ñoo xamante ni moom fi mu ne mën nañ suñu borom te ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci jëm ci suñu borom moo tax ñu laaj li nga xamante ni mooy salaatu ala bi yan njëriñ moo ci nekk te mën a dimbali aw askan waaw salaatu ala nabi njëriñ li ci nekk moo tax suñu boroom Mm-hmm. ak malaayika yi bàyyiwuñ ko nit ñi mm-hmm. julli dégg nit ñi la ko yàlla defloo ak junne yi mm-hmm. waaye bi mu ñëwee ba ci salaatu ala bi moom dafa cee jiital boppam moom yàlla teg ci malaayika yi door cee woon nit ñi door cee woon junne yi waaye comme jigéen ñee ko laaj damay tëb rek dugg ak ñoom ñoom jigéen ñi njariñ li leen yonent bi jariñ d'abord laata mu ñu leen a jox saatoon bi ndax buntub jigéen ci yàlla bi gën yomb mu jaar ba jàll mooy mu jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam fi ne yonent bi ni mu ximmilee jigéen ñi àdduna xettali leen nga xam ne fekkoon na leen ci tumuranke goo xam ne ñoom xam nañ ni bu yonent bi ñëwul woon ci kaw suuf jigéen du bokk Mhm. bu njëkk ku am doom muy jigéen gàccal sax nga leeral ko nit ñi nga leen sama doom ji jigéen la <laughs> bari na jigéen ñoo xam ne ba ñuy liir lañ leen suul mhm. jigéen nit amu ci woon ab lim jàmb jigéen soxna su la neex rek nga mhm. jot takk ak moom bu demee ba parité am kenn ku ne xam foo féete mhm. jigéen mën a liggéey moom ko ak dundam tranquille grâce à rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax nag bépp jigéen boo xam ne teel ngaa yeewu mhm. ba saxal salaatu ala nabi ci sa dund yow doo bokk ci jigéen ñi am problème hmm? boo xam ne teel ngaa yeewu mhm. ba saxal salaatu ala nabi waxuma teel a yeewu fajar de teel a yeewu ci bopp sa bopp bii nga teel a xam yow lan mooy sa rôle xam ne suñu borom da laa bind ngir nga jaamu ko mhm. yonent bi dañ koy yónni mu ngir mu gindi la nga xam ne yow espace bi ngay dund ci wàllu zikkar dafay diis ndax mhm. tudd yàlla góor ñi ñoo la ci ëpp doole mhm. yàlla yónnee fi yonent bu jigéen li ñëw lépp góor ñee ko indi yow fi nga war a mën a jaare muy sa bunt boo ko teelee xam tam yonent bi laa wax ba nga saxal di julli ci yonent bi lu bari yow jigéen mën la sa àdduna doo fi am benn problème te jigéen rek lañ may mbooleem soxlaam bu ko ñaanee jaare ko ci salaatu ala nabi mu nangu. est jigéen rek. jigéen rek. <laughs> foofu ségrégation daa mel ni am na fa de. nabil ummi kay ci jigéen ñi nga koy dégg. wallaay tey sànni. Hmm? Hmm, wallaay. Ah, de. <laughs> yàlla mooy hmm? ndey ji yaa ngi dégg. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa jigéen ñi am nañ cër ci moom jigéen ñi tamit am nañ cër ci sikkar waaye li ma leen di digal mooy ñu saxal ñoom salaatu ala nabi ndax mooy bunt bi nga xam ni bu ñu ci jaaree seeni soxla ak seeni soxlay boroom kër yépp bu ñu ko yaanee yàlla mu nangul leen ko ci incha allah ndax amul benn jigéen boo xam ni jóg nga jëm ci yonent bi te yàlla rusewu la yonent bi ni mu leen xettalee fii ci àdduna mm-hmm. ci lu leen kenn mënul woon a dimbalee mm-hmm. noonu la salaatu bi nabi di xettalee jigéen fii ci àdduna ci lu ko kenn mënul woon a dimbali bi nag li ci doy mooy sëñ dafa wax ni mm. nit nit di jóge waaxu dem fee gis ko la doy nga def ko sëriñ ci biir doomu yi mm-hmm. noonu tamit la nit amee droit bàyyi fi nit ñëpp jàpp salaatu ala nabi def ko muy ab sëriñam ci àdduna maanaam moom yor ko di ko sikkar mhm. salaatu ala nabi mën naa taxawee jëmmi doon sa sëriñ moom doon sa wasila daal moom doon sa wasila <laughs> ci sëriñ Tuubaa te salaatu na bi bu xasee ba doon sa wasila day man lu nit mënul mhm. ndax moom dafa am kàttanu jàpp sawara mhm. tegal la ko nële ñoddi ko ba dootoo ko séen xëcc ci àjjana ba mu sës ci yow jàpp la dugal ci biir yaa ngi dégg maanaam ni yonent bi toll ci yàlla noonu la salaatu ala bi tollu ci yàlla ni yonent bi toll ci nit ñi noonu la salaatu ala nabi tollu ci nit ñi kon jigéen ñi maa ngi digal ñu saxal salaatu ala bi ci seen biir te bari luñ koy sikkar rawatina waxtu guddi ak takkusaanu suuf bay taala macha allah est-ce que ajowul am na lim wala jarul lim fi ne moom def ba kii rek waaw lim daal moom ay sekkare la ñu soxlay sekkare ñoo soxla lim mhm. waaye kuy jaamu yàlla jëru wutal lim yaa dégg mhm. bu dee ñoom dañ cee bëgg mucc dong mhm. ak yàlla dimbali leen nañuy julli rek lu mu gën a bari gën a gën. waaw <laughs> gën a gën kay. waaw <laughs> waaw <laughs> jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci ci leeral boobu ci salaatu ala kon nag defe naa ni suñu bokk soxna yi ñoom it tey jii amati nañ tawféex goo xamante ni leeraat na te sëñ bi xam nga li waar mooy lii yii lu tax tey jii borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne ci rajoo yeeg télé yi di waaraati duñ indi yi nga xam ne moo ne ci biir yi fi ngir mën gën a jagleel askan wi saa su ne. waaw askan wi comme yàlla indi na leen bagage boo ko indiwaatee foo koy teg am na leer la leen ñu xam-xamee ràññee. waaw xam naa ni daal. Mhm. alxuraan ba mu ñëwee la penc mi leer nañ ñi. gëmmu gëmmulu gii nekk ci réew mi nag ak tëx tëxlu gii ci la nit ñi mënul dara. lay wax nga dëgg de waaw gëmmu gëmmulu tëx tëxlu lu leer nga wax de. te doomu aadama daa bëgg ñaar. Mhm. daa bëgg nit lu ko nit digal. Mhm. bàyyi li ko yàlla digal. Hmm? Mhm. doomu aadama boo gis buy wër hmm. li ko yàlla jox la fi bàyyi di wëri lu nit yor loolu nag dafa indi jafe-jafe hmm. ah day dikkaat ci la nga waxoon keroog rek li nit ki yor fi ne ci yàlla la jóge kon balaa ngay dem ci nekk ki kay jubal ci yàlla benn loolu noonu loolu tax boo gisee sax sa émission yi ma sawar ci euh, delloo si gi ma leen di delloo si ci cosaanu cosaanu mbir mi moo tax ma sawar si ndax yoon wu ne fi ne jaar ci àgg rek moo am solo wallaahi waaye wiiri wiiri yoo xamante ni si nii mënoo jëm àgg fa nga jëm mukk hmm. tardement rek lay indi ak coono gu bëri rek waaw tardement rek lay indi jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu muccati naa it macha allah rabbi xam naa dañu daal di dugg nag ci actualité xam naa ne ñetti ponk daal laa ci tënkoon rek bokk na ci li nga xamante ni mooy euh, feebar bi xew ci réew mi fan yii nii nga xam ne fi ni koo gis fi ne mi ngi uti weer ko takk ak di fi yëf dañuy gis ni at mu jot day am waaye ren ji dafa mel ni ni mu dikkee dafa gën a waar na mu daan dikkee waaw mooy feebaru wànnant bi mooy appalo mhm. kooku médecins yi wax nañ ci nee nañ ci ay microbe lay jóge mhm. moo tax te jamono bi muy gën bari mooy fu poussière bari wala ndox mi wàccandoo mhm. loolu muy tool am na ci nag ay médecins yoo ci génn xam-xam yu ragal yàlla yoo xam ni xalaat yiñ ci indi simple na waaye mën naa dimbali doomu aadama mooy tàngal ndox ba mu tàng def ci xorom xool ko mhm. cóolal boobu dugg ci sa biir bët yi dafay rey microbe bi ndax luy dee la rek mhm. bu dee moom nga daan yor ci mhm. moom daa jëlul dem ci sëriñ di wax lenn wala nga ciy fay benn dërëm <laughs> dañuy <laughs> wax képp koo xam ne daal ndox jigéen na la ndox du jaay fenn xorom it cent franc loo ci am juróomi dërëm xorom sax mën na koo baax bàyyi boo waxalee ndox mi ba mu bax nga tibb xorom def ci mhm. jox njaboot gi am apollo ñu sëgg ci mhm. xool ko mhm. ñaar eh, ndox mi bu cóolool li duggee ci sa biir bët yi rek boo ko defee ñett fan ñeent moom da nga xool te dina dañ xasan seeg yëpp day daal dañ loolu moom médecin yu wuute yu wóor xam-xam leeral nañ ko te noonu rek lañ ko saafaraa incha allah beneen bi tam bokk na ci fi mu toll ñu gis ni fan yi accident yi tamit dafa mel ni lu tàmbaliwaat ci réew mi bëri na lool waaw oh, accident yi moom réew mi moo laaj sarax réew mi moo laaj sarax boroom réew mi laaj sarax. Mhm. te ñaari sarax yëpp defaguñ ko. boroom réew mi ak réew mi. waaw réew mi dafa laaj ñu génneel ko sarax. Mhm. boroom réew mi tamit dafa war a dem ci ay nitam ñu génneel ko sarax. Mhm. seen ñaari sarax yooyu yëpp defaguñ ko moo tax dëkk bi demee nii mu demee nii man ci sama bàttinu bopp loolu la ma yàlla wan. te loo ne tële naa ko saf ñaan yàlla. ñaan yàlla moom yàlla mi ma bind moo ma may lu ma ñaan nangu moo tax fi ne man li ma suñu war a ci réew mi mooy réew mi lañ ko war a génneel sarax borom réew mi itam dafa war a génne sarax baax na baataala jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral bi kon nag borom réew mi moom defe naan dina dina dégg euh, wax dëgg yàlla kàddu yi te dina seetaan émission yi wax bu ko seetaan te dinañ ko ko jottale xam naa ni ndax gannaaw nag moom moom moom moo ŋànk réew mi jiite ñu wax dëgg yàlla war naa jóg ci sarax yi ndax accident yi bëri na barki démb ñu ngi gis fële camion bu yegg ci kaw taxi démb ñu ngi gis camion bu dajante ak akub kaar fukki doomu aadama di ñàkkandoo seen i bakkan par ci accident yi moom kon na jóg taxaw ci sarax yi def ko ndax réew mi mën a mucc rawatina nag ci jamono ji ñu toll ni nga xam ne li fi xew ya bëri na sëñ bi mu mel ni jamono yi ci ginnaaw am na benn jotaay bu ñu mosoon a def nga waxoon ma ci ñetti président Afrique yi nga xamante ni ñoo gën a mystique mystique ci àdduna mm-hmm. waaye ñaar ñi damaa bëggoon nga indil ma ay leeral ci ñoom kii di Alassane Ouattara ak kii di Ali Bongo. waaw ñaar ñi nga laaj seeni mbir suñu boroom ñoom ñaar la boole ndoo wan ma seeni mbir. ñoom ñaar ñi. Mm-hmm. fi mu ne ñoom ñaar ñi kenn ku ci nekk daa am tawat bi muy parce que muy Alassane Ouattara dafa am tawat. Mm-hmm. ju muy muy Ali Bongo dafa am tawat ju muy nëbb hmm? te li gé li gën a yéeme ci seen mbir ñoom ñaar ñoo bokk benn sarax allahu akbar est-ce que waaw kenn ki moom muy Alassane hmm. moom day génne saraxu boppam bu jëm ci wàllu santé wér yaramam hmm. génne sarax bu jëm ci diggante ma population bi parce ndax tawati Alassane loxo yi njabar da cee dugg loxo mm-hmm. loxoy féticheur da cee dugg mm-hmm. néexutal laal nag waaye bu sàgganee dinañ ko jàpp bu génnewul sarax ngir wér-gi-yaramam mm-hmm. génne sarax ngir population danañ ko téye ci tawat ba pare xabtal réewam ci kawam Aly nag moom dafa am tawat ju ko dal yàgg ci moom mhm. te tawat ji yàgg gi baaxul moo mhm. mooy bu génnewul sarax mën naa am lu ko naqari ci boppam est-ce que ñoom fi ne ñoom gëm nañu sarax yéeg yi nii waaye pas gëm nañ ko mais est-ce que ñoom fi ne sarax yi ñu war a def ñoom fi ne xam nañ ko ba war ko mën a def ngir mën a mucc fi mu toll nga sarax ku ko njëkk a gëm yàlla mi bind jaam wallahi lazim digle ko itam yonent yi ay sarax mucc la leen ñan ñi sax moo fi bàyyi seeni baay waaye dañoo war a faatu mhm. réew moo mën a gis ci àdduna ñu naan la kilifa ga gëm na sarax ak gëmul sarax ña koy wax mooy population waaye kilifa ga du ko wax la ko daggee nag ci nguur yi mu xam ci àdduna yépp nguur yépp saraxa ko fi tee ak ñaan mhm. loolu obligatoire la ci ñoom dama leen koy junj rek ngir ñu dem defal defali ko seen bopp te wuti ku leen ko defal man moom mën naa ko bañ a def sax ndax yooyu intéressé wu ma. Mm-hmm. waaye ñaar ñii lii ma la wax buñ ci jugul ñoom. Mm-hmm. ci diir bu gàtt di nga toog fii ñuy waxtaanee seen mbir mbay taal. incha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral boobu xam naa du ñàkk ñoom it fi seen i seen seen seen i ñooñ danañ seetaan jotaay bi danañ leen danañ leen ko yeggee tamit ñoom it su ko defee dañ ci jóg sàkk ci ay pexe ndax defe naa ni moom. yi ngir mën a sàmm sa wér-gu-yaram ngir mën a am fan wu gudd ak wér moom defe naa ni euh, jar naa daw ba dee macha allah rabbi tey jii bu ma laajee sëñ Cheikh ma Ndiaye lan ban sarax lay digal askanu Sénégal rawatina nawet bi ñu nekk ak jafe yeeg yii ñuy dund nii ci jamono bi toll ñëpp ngir mën a mucc. waaw bi de conséquences yi bari na ci lool. Hmm. rawatina ndox mi nga xam ni nan naa indi ay dégâts. Hmm. rawatina feebar yu sew yi nga xam ni dafa war a wàcc ci kaw askan wi mm-hmm. man nag saraxu baatin bi ma ci suñ borom wan mooy kenn ku nekk li sa kattan am ci sa wërsëg mm-hmm. loo ci mën a jël nu mu toll baax na bëgg ma leen cee jox ab lim waaye bu ma sañoon daal mm-hmm. bépp Sénégalais bu mu mën doon sa wërsëg nga jël ko yóbbu ko ci imam bi la gën a jege jox ko ko Hmm. waaw muy xale ak mag ak ndaw ak liir bu ci am ñaar téeméer sax na ko jox sa yaay mu boole ñaar téeméeram ñu xool seen imaam koñ jox ko ko ngir yàlla. mu dem ci néegu yàlla bi la. déet bu ñu lijjanti nag fu mu koy def. Hmm. waaw nañ ko jox di teg loxo yi man suñ borom wane rek la leen di waxee. Hmm. ñi bëgg mucc bëggu natt suñ borom yu tar yi ne ci seen kaw ñu génn ci. Sénégal yëpp laa ko wax. Mhm. man nag bu may xas bay wax ci ndigul yàlla laay waxee génnuma ci kilifa ak kenn ñëpp laa wax ku mhm. mën a doon. Mhm. soo yoree lu commencé ci 1000 francs loo doon xale-xale dajale leen seen kër ñaa mën a am te mën a joxe. te gëm yàlla te gëm li ma wax. ngeen dajale xool seen imaamu koñ dem jox ko ko ngir yàlla. te jumaa ja la koy def ak mhm. da koy lekk ak <laughs> da koy kii ak yooyu seen i nekku ci ah, mhm. lii daal ko ko def mhm. balaay at mi di ci mucc dégay yàlla dina leen ci musal incha allah ndax at mi ànd naag balaax loolu laa ci gis bi ci toppit am na lu ma suñ borom wan ci nit ñi dinaa leen ko teel a wax képp koo xam ni danga nga cee yoroon alal ju jóge ci miraas te leerul leeral ko boo ko nunguta leeral nag ba ca catu ak ma mën naa mu yóbbaale la ñu <laughs> yor alal jirim yi mhm. suñ ko leeralul mën naa bañ a baax ci ñoom mhm. ñi lu doomu aadama yi ci erreur ba pare xam ko maanaam mhm. ñi sosal nit ba tëj leen suñu leeralul loolu mën naa bañ a baax ci ñoom ñi yor alali jirim yi nañ ko génn jox ko seeni borom mm-hmm. ñi tëj lu nit ñi ci ay caaxaana ak fen ak sosal nit ki ba tëj ko mm-hmm. nañ leeral loolu mm-hmm. ñooñu kat bu ñu deful lii ma la wax déeg yi ni mu songee àdduna mel na ni gannaaw ba nag ci ñooñ la jëm si ñooñ ñooñ lay ciblé ñiy dundee alalu jirim mm-hmm. ak ñi yor alalu jirim yi ak ñi nga xamante ni si nii dañoo jàpp doomu aadama yi teg leen fitna mm-hmm. waaw ni corona bi ñëwee raafal mm-hmm. boo moytuwul booy déggati dégâts ñi ëpp ci ñiy dem ci corona bi ci jamono yi ñooñ ci la ñuy bokk moo tax nag bala ngaa dem di am fee problème am fii problème leer la see problème bala ngaa dem moo naa ni waaw loolu mooy message bu mujj bi te li ma lay wax nii nag bàttin la bëgguma ko wax wax ko de mhm. dama yor sama kurus gi yàlla wan ma ci ay yooni yooni yoon ni mhm. doomu yi yor alali jirim yi nañ ko bàyyi ak ñoom mhm. yi yor alali jirim yi ko génn ci seeni loxo suñu ko deful nee naa la ñi ëpp ci yor ñi yor alali jirim yi dinañ faatu ñi dugg ci ay tappale ba tëj lu doomu aadama yi ci kaso yi nañ leen génne lu suñu ko deful ñëpp ñoom dinañ faatu baay taal lii maa la ko wax mën nga ko bind macha allah <laughs> amati na solo sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye sant xanaa bu baax a baax gërëm xanaa tey wax rek la mooy doon kàddu yu mujj ci jotaay bi tey macha allah waaw sant yàlla ak euh, wax ni waa bitim réew yi nga xam ne ñoo sàkku genre émission yi mhm. te bëgg njariñ bi ci génn rek ah ñu ne ñu ngi leen di ñaanal yàlla liñ ciy dégg yàlla nañ koy jariñoo comme ñu ngi ciy ànd ak ñun di ñu ci gunge yàlla na ànd bi yàgg yàlla dong moo tax ñu koy def séentuwuñ ci dara mhm. séentuwuñ ci xaalis séentuwuñ ci àdduna ndax loolu yàlla dimbali nañu ci mhm. waaye comme bëgg-bëgg doomu aadama la te yàlla amul lu luy jaamam mhm. moo tax may gën di sawar di ci ànd ak ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëfati sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci jotaay bi macha allah bi ci jot gi nga jël jagleel leen ko te lépp itam li ko waral mooy saa su ne li ngay wax te jeexalee ko rek mooy taxaw jaami yàlla yi ba kenn ku ne xam fu mu war a mën a teg tànkam digganteem ak suñu borom waaye digganteem tam ak ci dund gi nga xam ne mi ngi koy dund kon ñaanal la yàlla bu baax a baax sama borom doolu laa taxaw doole guddal fan wi gën a wéral cër yi ba mboolem yéene yi nga naalal askan wi tam sama borom defal la ci lu kawe sax njott te nu ànd ko ak yow tamit macha allah rabbi waaye itam sant mbokk internet yi nga xamante ni ñoom it saa su ne ñi ngi teewlu jotaayu xam-xam yi mooy ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew fu waay mën a nekk te di di ñu teewlu rek ñi ngi leen di ñaanal kenn ku ci nekk fa mu nekk lay bëggam ak yéeneem ak mébétam suñu borom mi dul jeexal dara yal na yàlla na jàppale leen lépp waaye di leen wax ni ba tey rek jotaay yi itam ngeen ko suivre topp ko tam ci YouTube bi ci chaîne bi nga xamante ne mooy Alxuraan TV mbooleem lu ngeen bëgg ci turu yàlla yi wala mbooleem lu ngeen soxla ci leerlu ci li nga xamante mooy salaatu yi rek bu ngeen fa duggee incha allahu rabbi di ngeen fekk jotaay yu leen fa seen Cheikh Ibrahima Ndiaye Alxuraan jagleel macha allahu rabbi kon di leen jox dig daje incha allahu rabi taala ci beneen jotaay ak seen jotaay yu xam-xam bi nga xam moom la leen saa suñ di wax ni rek jërë ngeen wa salaam ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw